ginnaaw bu ñu xeexee ak président Macky Sall waa PASTEF si la ñu ñëw au pouvoir eh, bi ñu ñëwee nag ñu waxoon moom mooy gouvernance bu yaxan dogoog lépp di njàcc lépp leer ci wàllu koom-koom ak financement ci atum 2023 xaalis bi ñu doon lépp mu ngi toll ci 14 000 milliards gouvernement bu Ousmane Sonko ci avril 2024 ci la ñu demee ci Washington taseek ñi nga xamante ni ñooy waa FMI ak a Banque mondiale ngir waxtaan nan la ñuy def ba koomu Sénégal gën a dem ci kanam gën a dem ci kanam ngir ni moo di néew doole jëmal kanam li di soqaliku ngir soqali Sénégal nag ab xaalis rek moo fi sës te ab xaalis dafay tax baru Sénégal gën a yaatu laaj bi moom mooy ndax war nañu def lépp ba li ñuy soqali mu jóge ci dëkk bi beneen laaj bi moom mooy suñu koom li ñu am ndax mën nañ ko jëfandikoo ngir def liggéey bi nga xamante ni état bi loolu la bëgg muy laaj yoo xamante ni tontu yi mu ngi ci ab xaalis ndax ndaxte atum juin 2021 état Sénégal ci Macky Sall ci la ñu aboon xaalis ñu koy woowee ay eurobond lu toll ci 508 milliards ci suñu xaalis ñu bëri ŋàññoon ko ŋàññ yooyu daanaka moom moo ñëwaat tey 450 milliards ci suñu xaalis ci ay eurobond moom la nguurug Bassirou Diomaye Faye lepp 4 mai bi ñu génn mu nekk dikk ci wàllu koom lu dëppoog lu ñu fi waxoon ci campagne électorale yi ne nii nag boru Sénégal mu ngi yokk saa yu nekk li nga xamante ni moo jugee ci askanu Sénégal muy lempo daanaka bëriwul noonu état Sénégal janook ay digleem ak ñi nga xamante ni bés bu nekk laaj ñu lu dul ñu wàññi dund gi